daal di uh, wax déclaré li nga xamante ni moom mooy gasta gasta ci li nga xamante ni uh, moom mooy uh, waa waa coalition Sàmm Sa Kàddu dont le tête de liste est Barthélémy Dias donc mi ngi ko ah, xamal ginnaaw nag ba nga xamee ni fële ca Saint-Louis ay agression daal dinay am foofu noonu ci militant wu parti ah, Pastef donc mu nekk loo xamante ni ah, lu lu loo xamante ni Coumba Ndoffène lu jéggi mm-hmm. dayo la ci milieu campagne bi comme ni ko njiitu réew mi waxee woon rek mm-hmm. dafa woote ñu dem ci des campagnes qui est sereine ak aussi plus de maturité ak ku ci nekk rek jël responsabilité am donc yaakaar naa ne lii nekkul loo xamante ni modèle la wala nekkul loo xamante ni exemple la suñu ay culture waaw soxna Fatima comme ni nga ko waxee campagne électorale bi moom bi mu démarré ba léegi malheureusement dañuy nemmeeku ay ay scènes de violence woote yi nga xam ne woote nañ ko yëpp jëmale si jàmm kon dafa mel ni France la amul dara daal loo xam ne kon jur na ko ndax nag violence yi bëri na ca Mermoz la tàmbale woon gis nañ ko Koungheul ah gisaat ko feneen ak feneen bi ca mujj mooy Saint-Louis moy ay image yoo xam ne ñaaw na lool mhm. yoo xam ne yëkkati nañ ko Euh, teg ko ci kaw ay nit. Mhm. nekk na daal loo xam ne lu ñaaw la ak image yi nga xam ne gis nañ ko fa. nañ ko jiiñ nag ñoom ñooy coalition takku wàllu ak sam sa kaddu yen ne jamono jooju ñoo doon amal ab caravane ñu ne bañ doon amal caravane fi nga xam ne kon moom mooy euh, en tout cas secteur boobule. Mhm. am na ñu leen toppoon di yuuxu naan sonko sonko mhm. ñu nak nag coow li ca a tàkkee ba kon ay jàmmaarloo am ci mais boo gisee image yi nga xam ne ñu ngi koy wane. ci biir euh, en tout cas ci internet bi. ay nit dañoo fekk ay nit ba seen biir place ba seen biir place gaañ leen am koo xam ne deret bu bëri tuur na ko mm. jël fa li nga xam ne moom mooy ay bagage euh, te loolu bu doon violence la mais sa càcc sax boole nañ ko sa kon muy image yoo xam ne image yu la euh, ñu ngi koy regretté bu baax a baax nga xam ne kon moom mooy violence euh, yooyu la comme ni ma ko wax ne ñu ngi ko jéeñ waa sama sa gàddoog takkuwàllu loolu ba amee it ki nga xam ne mooy jiital passé Ousmane Sonko. Mm-hmm. gis nañ ne nag génn na def ab déclaration déclaration va-t-en-guerre en tout cas woote ne Euh, en tout cas fayu daal euh, dina am ci li nga xam ne kon def nañ ko woote li nga xam ne moom mooy mobilisation euh, ab mobilisation. Mhm. tey sax itinéraire itinéraire de de de campagne bi ñu joxe woon bu fekkee ne li mu wax démb dañ koy def kon seen itinéraire boobu duñ ko topp que daf ne tey jii. Mhm. dinañu dem amal li nga xam ne moom mooy ab caravane. fa nga xam ne moom mooy Sicap Baobab ku ne xam na ne. Barthélémy Dias mooy fii fam nekkoon na fa maire fi mu nekk nii fa la dëkk mhm. kon nee tey fa ñuy defee seen campagne woote mobilisation mhm. ne gat sa gi nag kon dina dellusiwaat ci li nga xam ne kon am na nee na nag interpellé woon na au début mhm. ki nga xam ne mooy les deux ministres ak yi mais daal gis na ne nee na te buñu seen liggéey mu ne ñoom dinañ fayul seen bopp dem carrément loolu la fekkee ñi nga xam ne kon ñooy autorités yi ministre ak en tout ki nga xam ne moom mooy ñaari ministre intérieur ak ak justice mi nga xam ne ñoom la bi di conseil ñu mhm. xam ne mooy jiitu réew mhm. tamit euh, interpellé na jiitu réew loolu duñ ko nangu mhm. kon daal euh, nekk na en tout cas fi nekk nii daal benn escalade bu ñu gis ci li nga xam ne moom mooy violence bi am ci campagne bi benn hausse de tension boo xam ne c'est malheureusement regrettable ndax nag euh, comme ni ma ko waxee chaque fois rek campagne électorale war na mën a am ku nekk dem fu la neex battre fa campagne ku nekk jàll fu la neex tooyante yi mais romb nga romb ngeen nee nañ Sonko Sonko Sonko lañ àndal mais avancé leen ngeen dem seen yoon mm-hmm. pour man bu fekkee loolu mooy simple raison tax ñu attaqué c' est pas normal nit ñuy attaqué mm-hmm. romb nga nit àndal ak yow ñu waxu ne nee na diw la àndal Sonko nangam nangam <clears throat> man daal pour man fekk saagoo la wala wax wax wala wax wax ñaaw wala attaqué wu la demal nga bàyyi ko. te nit ki am na droit sax faral ku mu faral. effectivement wala wala ku ko la ku la ki nga àndal ku nekk am na droit def loolu. mais loolu pour man warul nekk benn en tout cas cause li am démb ba ñu mm-hmm. gaañ si ay nit gaañ yoo xam ne. ñaaw na trop ci place am. fekk nit ba seen biir place ah ci seen yëf gaañ leen xam nga nekk na loo xam ne ñaaw na ci ginnaaw ga bi mu amee it euh, information yi bi ñu ci amee ñi nga xam ne ñoom ñooy ay garde yu caravane Sam Sékat loolu ñu xam ko teg nañ leen loxo. Mm. waaw ñi nga xam ne ñoom ñooy ay caravane yu sàmm sa kaddu teg nañ leen loxo soxna Fatima ma bàyyi la rek nga développé xam naa ma ñëw mu nekk loo xamante ni vraiment lu lu lu yéeme yéeme la euh, Coumba Ndoffène comme ni ko njiitu réew bi waxee rek donc lii waroon waruñu ko woon sax euh, daal di euh, daal di dund actuellement waaye lu ci munti am rek